salaamaaleykum téléspectateur u télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu siwaat ci seen beneen numéro Al na bu tay bi nag ñu am mbégte di fi dalal koo xam ni kenn dootu ko présenté ci domaine bi muy yëngatu ndax ku ci ràññeeku la ñu am mbégte di dalal soxna Dial Mbaye ajaratu Dial monsieur Alé Mbaye maman ñu ngi leen nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci Al Moumina waaw ma maa ngi leen di fay bu baax di kontaan ci dalal gi ci Al na tur dafa neex mm-hmm. émission bi macha allah Euh, di leen ziar di leen balu àq ci weeru koor bu tëdd bi di leen baal di bal ñëpp di baal àq ñëpp yan yàlla boole baal. gëj nañ laa gis maman Dial ci lu mu nekk. maa ngi nii rek eh, di yëngu ci sama yënguy bopp rek xam nga woy day ànd ak dara mais doo toog di woy rek bañ def dara waaw moo tax ma yëngu ci sama yënguy bopp rek yaa ngi toogoon ci bitig bi ci suuf sànq. xale yi ñoo ko fi ubbi. ñu jàpp ci. tubaarkalla macha allah après itam ak sama li may jaay ay sër njaago. damay jaay ay njaago yu rafet riis yoo xam ne damay ñaan yàlla ba amee jëkkër ma jox la ci benn nga muuroo sëy <laughs> incha allah yàlla baax na euh, mama euh, sama njëlbeenu wax maa ngi naan la ñu ngi dalal euh, soxna jaal monsieur Aly Mbaye monsieur Aly Mbaye ku ne xam na ko si si Sidi Hadj Malick ma buggoon xam rek yow nga juddoo ci ci ci environnement bu ni mel sama problème mooy nan nga def bu mun a dugg ci wàllu way musique bi. <laughs> waaw waaw xam nga yàlla sunu borom mooy bind doomu aadama mm-hmm. bu ko bindee. balay juddu ñeent fukki guddi dafay yàlla moo xam fi muy dem ak li muy am dafay teggi naram nar la rek nga teggi ko loolu yàlla daf ko bindaale xam naa ci man loolu moo tax waaye ci diine commencé di woy sikkar wasifa jàng alquran dama bëgg rek nga ñëwal ma tuuti rek ci diggante Sidi Hadj ak monsieur Alla Mbaye mii sa wéju sam baay euh, dégg sapir daf koo jur waaye ba mu ko daataa am dafa sonn maam birum kumba nag daan ànd ak buur yi moom tamit dëgg benn sëriñ bu mag bu nu benn sëriñ di wàcc na fii bu am diine bu am xam-xam bu mën a ñaanalaate muy maam Demba Xuréja moom lañ ko daan wax Demba Xuréja mooy maam Ousmane si mu jur Seydi Hadji Malick mu dikk ci buur bi mu àndal ni ko man de ba ma jëlee soxna ba tey sama soxna si dafa taxaw damaa bëgg dem mu ñaanal ma ndax yàlla defal ma sutura ndax nee nañu mi ngi ñaanal waa dëkk bi bi mu tàggoon nag euh, buur bi mu àndal mu ne ko demee la boo demee lu mu la laaj nga ñëw ma jox la ko ñu fay ko bi mu ñëwee wax loolu maam Demba Khoury ji mu ne ko man fayiku ma la dara li ma bëgg mooy bu ma la ñaanalee ba mu am doom bu góor na nga ca daara ji mu jàng alxuraan. sam baay juddu loolu mu liyee sam baay ak Seydi Hadji Malick dafa yàgg dañuy defee ne sam baay dafa topp Seydi Hadji Malick rek noonu déedéet xam nga waliyu day am baatin baatin boo xam ne li muy gis yow doo ko gis loolu tax man ko ba amee doom bu góor yóbbu ko ci daara ji. ci la sam bàyyi nag dem ci daa ji ba mata dem cekkeen ñu yóbbu ko cekkeen muy jàng ñu jàng alxuraan ba nu jox ko Mor ma Samba Jéeri Jeng ca Ndar maamu Maodo Touré mii moo jur soxna Yacine Jeng sama turandoo man Yacine laa tudd. macha allah jaal bi la ñu tàmm. waaw Yacine jaal xam nga turu neex le la. Ah, macha allah pourtant nag Yacine nag turu neex. Yacine moo nekk samay pièces. ba droit de terre ak France ak fépp moo ci nekk. surnom mooy mooy jaal léegi nag. yàlla def euh, bi loolu amee sam ba sam bàyyi nag yàlla di ko def muy jatee mar ma Samba Jéeri Jeng mu teg ko ci loxol seddi aji malik mu teg ko ci loxol Mbër Binta mu dellu siwaat nag ci Alaaji Malick si wax nañ ni sax su daan su daan dem si jumaa ji moom moo daan topp ko di ko way maam Seydi Hadji Malick bu ma dem ci jumaa ji sam papa koy topp di wax jaraayiru naatuma ah bi jaayi Muhammadi isaa sufi almahbu bi jaayi salam barayu loolu sam ko tax ma war a jaraa ji ngay dégg ñu koy wax doom yi ak sët yi di ko wax ci télévision bi loolu la sa bàyyi seq ak Seydi Hadji Malick ba ku mu am Alaaji Malick la ba sa papa ba mu am Alaaji Malick kontaan génne dërëmu ngurdu di ko jox ne ko ba fekkoon lu ëpp lii ma jox ko mu ne ko mu ne ko man des si li bëgg mooy nga ñaanal ma sama diggante sama borom may yàlla kese am àllaaxira am àdduna mu ne ko li ma bëgg li nga bëgg mm, dinañ ko ñaan yàlla yàlla dina nu ko may incha allah ci kattanam ak mbaaxam mun ko nag ah léegi nag lu dagg ci sama butit rek nay tagg yonent bi salaaw salaam moo tax xale yëpp ay kaday Moussa Ali sama kër gi sax boo ñëwee xale ndaw yi dañuy. Mm, macha allah quartier général ba keroog sax euh, ñoom ñoo fa nekkoon waaw ñoom ngañ Baye ak ñoom Cheikh Tidiane macha allah am na solo neexoon na. mais loo def ba ñu bàyyi la comme sa yow sa famille euh, fële lañu si keppaaru si Hadj Malick radiyallahu taala anhu fa lañ fa la ñu nekkoon yow noo def ba tàggoo pour ñu bàyyi la ci musique bi. Euh, xam nga géwél nag day nekk géwél bu bu saf géwél yàlla daf ko def ci ñun ko am xew ci koñ ba wooma ma ñëw ñun ma Jaal Mbaay taggal du sëñ Babacar Si léegi nag may woy ci ngénte yi di woy ci ceet yi ba ñëpp xàmmee ma yàlla def làmb amee fii ci euh, Pikine syndicat am na naar yu ñu daan wax groupe xay si ñoo ko daan tëgg ndeysaan ñoom Semu Dieng Habib ndeysaan xale yooyu ñoom daan ànd bu nu ma woyee dañu ma may xaas bari mu ñëw nag jox ko sama jëkkër. mu kontaan. sama nee ma ñëw rek jënd suukar ak warga waala waala la. jëlal ko ci affair ni ko am moom nag ma tàgg ko ba mu bàyyi ma bi ma bàyyee nag ci laa ci télévision bi national ñu jël nu man ki na Samba Jaber waaye lépp grâce à Alaaji Mansour Mbaye bi ñu koy réunion ci biir bureau bi ci euh, RTS moo ni jël leen jaal mbaay mën naa woy te yéen a nekk doo Tiwaawan dañoo bokk dëkk Tiwaawan mu booba nag maa aw sax ki na su ma ko aw rek ñu ne waa aw ki na kan la ñu ne yaayam la suñu ñaari yaay bokk ndey ak ma ne ko aw ba mu génne kasetu Balla Aïssa Boury ci biir Balla Aïssa Boury bi ci laa génne Faawa Dawele muy woy woo xamante ne yaakaar naa ne marqué nañu ñun ñëpp ba ba mu nekkee ba ñu nekkee xale ba nu ñu màggee nii woy woo xamante ne la moom moo ñu gunge muy euh, soxna Faawa Duwele boobu waaw moom mooy jigéen jë nangul maam Ousmane ba am ca aas waaw allah. na roy ci maam Faawa Duwele moom am aas kenn du Seydi Hadji Malick man su ci wax du du bari. dëgg la macha lu bari daf may daal daf may indil problème. mais ñu ngi may wax ni sax sa sa première euh, super ndaje moo amoon temps yooyu. Ah, bu nga njëkk def ñu ngi ne ñu ngi may wax ni euh, Serigne Mansour si yal na yàlla yokk ay leeram bokkoon na ci ñi la ñaanaloon. parce que bi ma ko waxee rek ni ma dañuy woy ci ci télévision la nag du rajo en direct la ñëpp koy seetaan wallahi ma dem golf boobu sëñ Mansour nga fa daal di ko naan man dama rabu si dañ noo woo ñun dañuy def benn super ndaje. mu ni super ndaje mooy lan ma ne ko super ndaje si moom la ñuy def ci rajo bees bi dañ koy ubbi di ko inauguré ñu ci def super ndaje di woo woykat yi ñu woy mu ne ma gëmal ma gëm mu ne ma de géwél dafa sob de ma gëm mu ne ma mu yàgg lool booba ñëwagul na fi ak léegi mu ne ma xeppi ma xeppi mu ne ma bis bii ci leen ñëpp ci xam ci leen ñëpp di bëgg ci ngay saf ñëpp ci bis bi ngay woy man dama jékki-jékkiwul woy rajo. télévision la ma ñëpp xam. gis nga keroog bi ma génnee woy boobu muy super ndaje àdduna bépp di ko seetaan boobu télévision boobu rek a fi nekk. ñaari ilimaani jàkk ñëw jëkk ñoo ci man. ni ma yow doom woyoo yow li nga indi mooy histoire. moom nga nettali. ci diggante man Cheikh Omar Foutiou ak moom Alpha ma yore wele avant Seydi Hadji Malick ku la ko wax man leen dama ko gëstu. ba jàng ko ba xam ko te dama ciy judd nag gëstu. mu ngoog euh, kon euh, mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nii di dalal euh, soxna Yacine Mbaye ñu gën ko xamee si turu Dial Mbaye man de Yacine désormais léegi soxna Yacine laa lay woowe waaw parce que man maa ngi doog xam loolooy sa tur. Lamine Mbaye. Mhm. rek la may wax maam Abdou Aziz. Badiane Yacine la ma daan wax barke El Hadj Malick Sy musuma wax Dial Mbaye. ñu bëri maam Yacine lañ may woowee. yàlla xam na ko. dee leen koy woowee maam Yacine Dial mbaay sax moo gën mais na bi jiitu macha allah kon laataa ñuy yeggali waxtaan bi rek ñu dem jëli publicité dellu si waat ci plateau bi. jaajëfal suñu mbokku partenaires yi ñuy gunge ci seen biir émission Al Moumina euh, soxna Dial euh, ma buggoon xam rek euh, yow fi ñu toll nii ndax mun nañ la xaar ci ay yeneen i kaset comme temps yi ngeen daan def ndax baat bee ngi fi ba tey moom macha allah. baat bi gaa moom mi ngi fi naan def nay moom moom moom dafa doyoon waar dañ tàng léegi de xale yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yéeg de. ñoo ñëw mhm. sax ku gëm yàlla te ko. Mhm. da ngay toog fi nga toog rek yàlla lay woo. yàlla moo lay jël si xam nga ñun toujours ñoo ngi ci liggéey bi. Mhm. parce que kuy def di nga nu woo. Macky Sall ba muy def jëm ñaaje bi ñun lañu jëndal ay cuub ñun lañu woo. promoteurs yi tamit làmb ji day lay ñu ñu nduróo woo leen diw woo leen xarme ma jàgg ak ay rakkam ñu ñëw toog suñu mag ju baax jooju kon nii nii ku ñëw di la produire di nga di nga nangu de wallaahi ku mu produire nañ ñëw ñëw seet <laughs> man nag bu boobaa li ma lay ñaan mooy eh, nga def cassette boo xamante ne du nekk comme yii ñii ñu la xamal xam nga xam nga ban laa bëgg man dama bëgg nga dugg si ëttu Sidi Hadj Malick rek ah cent pour cent loolu am loolu laa bëgg man boo xamante ne du am ay musique yi peut-être mu am xalam wala dara mais loo xam ne cent pour cent ay waa kër Sidi Hadj Malick rek lañ lay dégg si ay Taysir wala si dara parce que xam naa ni mën nga ko moom. تخميم المساء ويمنايل تخميم المساء رباب لا خلوة تناصابه ألنا تستهام يا لله من الله yow lii nga war di way yi moo neex yi nga war di way <laughs> ah kon ñu ngi lay xaar macha allah kon nañu nar a xaar uh, soxna Yacine Mbaye si si beneen feem macha allah am na solo léegi li ñuy def rek mooy dañuy daal di dugg ci weeru koor gi rek buggoon xam fi mu nekk nii sa ay na ci weeru koor gi noo koy paasee. ni ñu koy defee nag mooy ah, sellal ko rek def ko dim ko waxee jàpp di julli na nga daan def. danga ko daan def bu dul weeru koor nga yokk ci weeru koor yi comme la nga ci ñaan yàlla sa boroom li nga bëgg def sa ay dog di ñaan di jiital yar ci sa ay njaboot xale ndaw yi sax dañuy woor ci kër gi nga yar leen ci waaw ñu xam ñu xam diine. Euh, soxna Dial suñu suñu suñu émission jeex na soxna Yacine jaal Mbaye ma amoon mbégte doon la si dalal bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi lay seetaan. waa maa ngi tàggatoo tàggoo bu dul tàggoo benn yoon di ñaan yàlla dajewaat ci barke yonent bi. salaam salaam yàlla may nu gudd fan may nu wér may gërëm nag. télévision bu baax euh, ndax xam ñu dañoo xaw a màggat ngeen déplacé wu ñëw ci man loolu réy ci man torop nag yàlla xam na ko maa ngi ñaanal ki nga xam ne mooy directeur bi ca kaw ba ci suuf képp ku nekk TFM di ñaanal nag sama mbokk ya fa nekk dama fa am ay soppe yu baax a baax Pape Cheikh Diallo bu sooxuma leen sax ñoom ñoom ñoom dañoo yàgg ak mais Pape Anne Abdou Aziz Mbaye maam Fama di sama jàmmeñ baax ci man Alaaji Mor Thiam di sama sëriñ moom sama sëriñ laa koy woowee tubaarkàlla macha allah ñu fa nekk ñépp daal di sama ak ak oustaz Diouf ndeysaan ku ko sopp bintu moom dañoo bokk ndey ak baay maam Abdou Aziz sunu boole woon fat bintu Diop maam xam booba lii lépp amul maam boole woon teg sama loxo ak loxoom ak loxo mu xëy di baax muy taaw alaj dabdu moo nu boole woon ak fat bintu Diop ñu koy ñaanal gudd fan ak wér Youssou Ndour xaar mu defoon benn single rek après ma woy woy woy woy kii mooy mim yëpp président mu ngi lay seetaan ah, kon soxna euh, Yacine Dial Mbaye yow lay xaat pour nga ñëw produire ko macha allah am na solo mu ngi koy dégg euh, amoon nañ mbégte vraiment di la dalal ndaxte mbégte moo ci am rek ñun am nañ bu ko raw ndax dañoo nekk xale ba nu ñuy màggee di leen déglu te wax dëgg yàlla gisuñu dara luñ leen di xeebee woy am na solo macha allah dañu ci yeete di ci def lu nekk donc macha allah am na solo ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di suñu borom euh, may la kattan may la wér defal la jàmm defal ko sa njaboot di leen jaajëfal yéen ñi toogoon di ñu seetaan li moo nekkoon seen émission almumina bu tey bi di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon of mbay ak seega Moussa seen ci montage bi tey Faty Dieng moo génn ci maquillage bi dig daje ëllëg incha allah jaa ngeen jëf